ci wàllum koom-koom ak exploitation gaz bi dox diggante ñaari réew yi yooye ñooy doon tomb yu ëpp solo ci waxtaanu diggante ñaari njiitu réew yi lëkkaloo bi ci wàllum koom-koom nag gonoon nañ ko dooleel sax ci lu yàggul dara jare ko ci jiitu réew ma woon di Macky Sall ci visite officielle bu mu amaloon ni ki le 12 janvier 2024 bi ñu weesu ñu waxtaanoon lu bëri ci wàllum koom-koom ak jënd ak njaay ak itam exploitation gaz bi pont Rosso bi ak itam accord yi ci wàllum napp gi mu doon ay projet yi nga xam ne njiitu réew yi ñu ngi doon xamal ne ñu ngi ñu ngi avancé bu baax suñu sukkandiku ci kuréel bi di international Trade Center mi ngi xamal ne lëkkaloo bi diggante Sénégal ak Mauritanie ci ñetti at yi jur na lu toll ci téeméer ak juróom-ñaari million dollars loolee di wane diggante boo xam ne mu ngi gën di ratax diggante ñaari réew yi donte sax amoon na ay problème yu bëri ci at yi weesu président jommay nag yoon woowee la nar a topp ngir gën a dooleel dëkkandoo gi ngir mu am loole nag faw mu jox gëdd bu baax wàllum napp gi nga xam ne bari na ay problème yu muy indi diggante ñaari réew yi protocole ñu weesu diggante ñaari réew yi taxoon na ba ñu wàññi ñaxtu bi nga xam ne nappkatu ñu ngi ko doon amal ndax jomay dana ko saytuwaat changé lépp ak lu ci mënti am tomb boobee am na solo lool bokk na ci tomb yi nga xam ne dañ ko waxtaane itam muy exploitation gaz bi jaarale ko ci fayum lempo gi doxal loi bi ñeel contenu local bi ak itam condition yi nga xam ne moom la ñu nar a problème yi fa juddoo wala sax ci pàccoo gi ñaari réew yi danañu sukkandiku ci déggoo yu am solo yi nga xam ne xas nañ ko ba am gën ko dooleel danañu waxtaane itam kaaraange ci biir ak ci biti réew ak itam problème terrorisme bi nga xam ne mu ngi wéy di gën a am doole ci diwaan gi ñuy dippee Sahel jommay nag Afrique bu am doole bu booloo te mu moom boppam loolee la woote ba tax na Nouakchott ak Dakar ñoom ñoo nar wane yoon